nuñ leen bu baax jaajëfal leen yéen ñi safoo site internet bi di net bi TV li gën fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy eh, dooree kaddu yi nga xamante ne kii di Aïda Mbocc eh, daal dina koy yëkkati rek ginnaaw bu ñu jugee nag ci loi bi nga xamante ne rek nañ ko niki démb di loi amnistie foofa ca assemblée nationale jot nañu nag fësal rek ay xabaar yoo xamante ne rek doon na daw ñeel jàppale gi nga xamante ne rek ñu ngi ko doon jàppale victimes yi nga xamante ne rek amoon nañ ay gaañu gaañu ci manifestation ginnaaw nag kii di Aïda Mbocc daal yëkkati ay tontu rek. rek ñeel ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy critiquer leaderu ex parti bi ñu duppee Pastef moom nag daal dinay xamle du toll ci deux de francs CFA la ñu rek bi nga xamante ne rek doon na ko amal doon na ko am ak kii di Bassirou Diomaye Faye ca foofa ca prison ba da ko daal di xamle que ne lu ëpp wala lu jege deux de francs CFA yoo xamante xamante ne rek daal dinañ koy jël yóbbul leen ko ba noppi rek yóbbu ko ñi nga xamante ne dañoo gaañu ak ñi nga xamante ne seen njaboot yi ñenn ci ñoom dañoo ñàkk seen bakkan ci yooyu les manifestations mbir mu nu mel mi ngi ko daal di xamle moom Aïda Mbodj ci sunu nattangoy Sud FM moom ancien moom ancienne mairesse bu Bambey bi daal dinay tontu nag ñi nga xamante ne rek ñoom ñoo doon critiqué jëmale ko nag ci député Pastef yi avant rek ñuy voté boobule loi ba tey rek bu ñu sukkandikoo ci kii di Aïda Mbodj nee na nag gis-gisam wuute na lool ak yeneen gis-gisu kaddu politiciens yi nga xamante ne rek dañ nañ yëkkati kaddu ko ne nag arrangement kii di Sonko ak Macky Sall nee na nag kii di maire bu Ziguinchor moom ki kot dong rek moom moo daal di rek jàppale ñu nga xamante ne rek ñoom ñooy njaboot gi faatule wala njaboot gi xamante ne rek ñàkk nañ mu daal di cay yokk nak nee événement yi nga xamante ne rek moom mooy xew foofu ca assemblée nationale ginnaaw nag bi ñu defee boobu le vote contre projet loi amnistie bi nga xamante ne rek jamono ji nag mur mu nu mel dafa wàññi rek patt pataaral gi ndax ñenn ci critique yi nga xamante ne rek ñu ngi leen ko doon ñu ko doon def nag jëmbale ko ci député ex Pastef bi nee na nag yàlla leeral na lépp ba tey rek lam daal di xam ne rek moo di ne nag ba mu juddoo ba tey rek ci la mës a gis nag ci histoire Sénégal rawatina nag taarixu politique lu ëpp ci 1500 personnes yoo xamante ne rek ay détenus euh, politique lañ ñu daal di leen làq nag ci kaso yi jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de communication ngir am ay yeneen info